mbokki internet yi dal leen ak jàmm fii la ci Sénégal nag ak opposant la ñu di immobiliser tëj ko mënta génn benn yoon ki di président nag moom daal di doxantu ci mbedd yi nu ko neexee loole nag moom lay duppee une démocratie boiteuse ci ab chronique mu ñu wax ne nag simple procès en diffamation nag bu mujjee ci dépôt débauche d'énergie mobilisation bu takko takk bu suñuy force de l'ordre ak de défense et de sécurité ki la di domicile wala sax fa xam ne moom lay yeewoo moom mi la di Ousmane Sonko ñu daal di koy na moo di ab résidence surveillée bu ñu ko teg moom mi di président Ousmane Sonko njiital Pastef moom nag jàppale na daab ab barrage policier lañu daal di installé ci mbedd yi nga xamante ni moo jëm këram moom opposant bi la di Ousmane Sonko nag loole nag am ca ba ñuy jub procès bu nga xam ne war naa dox ci diggante mag Mame Mbaye Niang le 14 mars 2023 bi la ñu weesu wala sax le 16 mars 2023 bi la ñu weesu le procès bu ni mel waroon am loolee nag lañu ca tukkee moo di nag gannaaw convocation ba la soxla sa jour convocation ba daal ay yëngu-yëngu bu jee am ba ab arrestation maanaam tegugu loxo gu ànd ak bu ndaxatal bu métti sax dal di cay topp ñu yóbbu ko fële ca tribunal moom mi ne di Ousmane Sonko foofe nag génnewu fa sax nu ko neex ndax gannaaw renvoi bu nga xamante ni renvoi nañ ko procès bi ba le 30 mars 2023 moom mi ne nag force de l'ordre yi ñoo ko daal di dugalaat ca seen oto yóbbu ko ca këram lu jiitu ñu koy daal di hospitalisé avocat am nag moom tamit nekkoon na ci même situation bi waaye moom mee sax des ko mujj génne réewum Sénégal yóbbu ko fële aw wér-gu-yaramam loole nag nekk atmosphère bu doy waar ci am réew mu mel ni Sénégal jamono ji nga xam ne nag opposant numéro un bu président bi moom ñu ngi daal di immobile maanaam mu nga tëdd ca lalu hôpital kii di président nag moom jamono joojee mu mën a nekk ci corniche bi ak doxantoo ko jënd ko ko lu nga xam ne moom la ko neexee moom mel nag di wax ne vidéo bi nga xamante ni euh, gis nañ ci njiitu Macky Sall mu nekk ci mbedd Ndakaar du dox nu ñu su fekkente ne nag lu yees la dina jafe lool ngir ñu comprendre ban message la ca bëggoon a jàllale sur le plan communicationnel nee nag kii di chef de l'État bi ndax dafa doon wane ne moom mu ngi à l'aise jamono ji nga xam ne ki nekk principal opposant à son régime mu nga tëdd ca lalu hôpital gannaaw bu nga xamante ni ay force de défense et de sécurité ñoo ko dal di brutaliser teg bundu xatal ko ba yóbbu ko situation bu ni mel ba xam moom mi ne daf ñu bëgg wax ne mu ngi circuler tranquillement maam di jaar fi fu nga xam ne moo ko neex te kenn du ko ne déet ci beneen fànn aussi bu fekkee loolu mooy première réaction gannaaw maire mi nga xam ne am na ak manifestation yi nga xam ne gis nañ ko ak yàqu-yàqu yi am ci réew mi nan la ñuy mën a expliquer situation bu ni mel moom njiitu réew mi Macky Sall daal di doxantu yi nga xam ne amoon na fi file ci Sénégal bu yóbbee fi fukki ndaw ak ñeent ñu ñàkk ci seen i bakkan ay yàqu-yàqu am ci ay nit ñàkk ci seen liggéey amay nit yu ci amay gaañu gaañu yu métti ba faw loole nag moom mi ba mu génnee moom président de la république la mu waxoon ci kàddu moo di nag comprendre na jamono jile ndaw réewam taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ak maire mi nekk ci ñoom te pare na ngir jox leen réponse bi nga xam ne moom jamono ji la nag ci um, mois de mars 2023 gisoon rek ca mars 2021 moom lañu ñu gisaat ci mbedd yu bëri fii ci Dakar waaye ci biir réew mi wërngal këpp ay bus yu nga xamante ni daal di nañ leen saccagé taal leen ba ñu mujj nekk doom ay commerçant yi nga xam ne ñoo liggéey waaye jëlee nañ ci ay buntu xataal sax am ñu daaju seen i place ay victimes dal di cay am histoire nag moo répété waaye contrairement nag engagement bi nga xam ne moom la pouvoir yu jëloon naka noonu le président ak yeneen i autorités yi nga xam ne ñu nekk ci la ñu jëloon nag ne la dootu fa am waaye nag li ñu gis ni di la fa amoon nag moo daal di amaat loole jamono jooje nag li nga xam ne mooy nekk solution bu pédagogique nag ak une bonne démarche communication du nekk benn yoon li nga xam ne gis nañ ko muy vidéo bu nga xam ne président de la république mu ngi ca nekk ca corniche ba di doxantoo ko jënd ko ko su fekkante ne loolu lu yees la loola nag nekk xibaar bu naqari bu métti buy gàkkal démocratie ci réew mi nga xamante ni nag des ko duppee akum réewum démocratie réew mi nga xam ne exemple woon ci Afrique su fekkente nag ay manifestants dañ leen daal di ray daal di leen brutaliser sax ci anam yu nga xamante ni des ko wax benn yoon di la di économie bi nag sociale moom tamit nekk ci jafe-jafe nit ñi kenn mënul génn kenn mënul dem Sénégal yi sonn lool ci mbir mu ni jamono joojee nag nga xamante ni les choses ont très peu ak aussi bu ñu demee ba ndaw ñi seen engagement toll ci ab engagement suicidaire maanaam ba ñuy wax naan ku dee sa juraat les mamans de ceux qui vont mourir au combat vont en encore enfanté nag loolee di wane ab désespoir bu nga xamante ni ndaw ñi am nañ ko te joggi ñu jokk pere ngir bàyyi ci seen bakkan duñu bàyyi dara ci seen yoon loolu di ab chronique bu Mame Goor Ngom ñëw